assalamualaikum sunu mbokk internet yi maa mangi len di siar bax di len nuyu di am kontante ak mbégte lool jàkkaarloog yeen chen chen bi nga xamé ni mom moy mi TV waye émission bi nga xamé ni mom moy Ëttu heduna di émission bo xamné ne yaakaar ni Sénégal amna ay doomu aadama yu bëri yo xamné ne seen yitte buñ sañoon émission bi du continuer émission bi du am parce que lutax tax ma du am ak du continuer xeyna lañ bëgg. yàlla dawlul ñu ko wa ñu ci biir émission mooy ay waxtaan yu ñàkk fayda ci yenn ci ay domaines yoo xam ne amul solo amul lu ni solo moo tax dañuy kon na di wéy ci émission bi nga xam ne ni doomu aadama moom gën a bëgg di ko bàyyi xel mu ngi leen jariñ tey nag émission bi indi xale moodu moodu boo xamee ni ma ngay sikki sàkk xel ñaar ci gile soxna gi nga xamee ni yàlla dogal na muy sëy ak moom takkaay yu mel nii mu doon fi am ma waxtaan ci lu bari loo xam ni mat lu toll ci juróom-benn fukki vidéo yoo xam ne boo ko déglu lépp ci kaay yu mel laa ciy wax mooy immigré bu dem bitim réew di fa daan dooleem bàyyi fi jigéen ba mu takk mbàyyi tam sax mu takk ko ci ginnaawam mbàyyi tam sax mu dem ba ñëw doog ko takk ndax kii li ko dal yaakaar naa ni am na lu bari du mu dal loolu moom mooy bëgganteeg jigéen booba dara nekkul woon dara waaye tamit xaritam walla wëllëreem wala ca koñ ba am beneen jigéen ñu fa nekk boo xam ni bala yàlla di wërsëg dalal dara amoo dara booba musulaa xool musulaa bëgg waaye nga jële fi dem bitim réew di fa dànk doole ba yàlla dogal wërsëg yow ubbeeku ngay dégganteeg say mbokk ñu la koy buux nan la diw baax na te instant boobu xale bi ma nga woon ci dund leneen yow tamit nga ànd ak say mbokk ci loolee nga xam loolu lañ bëgg ba tax nga mën a bàyyi yow sa xalaat ak sa bëgg-bëgg nga daal di ànd ak say mbokk ba tax xale boobu sa ginnaaw ma yàgg wax ni fii ci néegu sëy amul kenn ku yàlla wax ci alxuraan ne yow yaay dogalal sab doom wala yaay dogalal kenn ki muy sëyal ndax ñaari yi ñoo bokk benn mela du mel muy néegu sëy ak jikko wala néegu sëy ak jëf doomu aadama jikko gi mu làmboo moom rekkee jikko moom xam na ko te mooy jikko doomu aadama li mu jëf ci moom yàlla moom rek lay xool la jëf yàlla du mukk du jël jëfu jàmbur du ko boole ji ci keneen ki nga ne ki nga bëggante ak ki nga yëg kenn waru laa wax ni la bàyyil kii takk kële wala takkal kii ndax sëy dafa doon lu secret kon yow mii di wëygul bàyyi di wax sa doom ne ko takkal kii bis boo ko defee tamit lu mu yàgg yàgg rek gàcc nga ciy jëlee kon gis ngeen ne cas bi indi indati na gàcc bu rëy ci famille ndax ba xale ba jëlee yittam lépp ba ko yónnee la war a yónnee ñu may ko xale jigéen bi ci ginnaawam xale jigéen bi nekk nekk fi at ak genn wàll ci lañ Moodu Moodu moom ci mun ko nettalee nee na fekk ma ci moom ndaw mënuma koo wax parce que samay wéy jur ñoom ñoo ma puus boobu la xale ba pare yaayam nekk ca koñ ba wóolante sama yaay bi mu nente sama famille loolu muy benn erreur ñaar aussi moom moo di nee na ma ba ma demee delluwaat di dëgganteeg moom ma ngi may xamal ni ma ne am na ñeneen ma doon génnanteel bi nga xam yaa may bëgg takk waaye yenn saa yi ñooñ damay dëgganteeg ñoom bay pénloo ak ñoom xam na am na wax joo xam ni daana koo xele koy àddali ndax junju doy na borom xel xibaar topp ci borom këram bi nga xam ni ba mu koy takk sax fekk lu woon ci moom ndaw ndax ndigal woon jural loolu gën ñu poussé bi la jëkkër di immigré ba gën a am sikk sàkk ci bile xel ndax xel ma ma ngay lam lamee ne ndax kon sama jabar ñàkk bi ma ko ñàkk fekk mu nekk ci ndawam am na ñeneen ñu àggoon ca kawam laata ma ko takk kon nekk gii ba léegi ma nga ca loola léegi nag mbir ma ma ngay dox ndax moom waxambaane boobu di immigré ba waxante naat ay way wëjjum ba xamal leen ni kii daal fan yi dégg naa li muy waxee man daal dafa mel mel ni ma nga ci biir ngoro ci biir néegu sëy ba waaye nee na wuy juróom ya tànkam lu ko ne ko li nga wax du sa wax ndax mënoo nekk fee xam ne xaw fii am na ku lay fen ci koñ bi am na ku lay wax nangam nangam mooy leen déedéet moom moom wax ma dégg mais li war a wax bi am solo mooy waxambaane bi di immigré bi ni mu ko yàgg waxee rek mu ngi bitim réew di daan dooleem dimbali ay wéyjur yor na soxna ci di ko defal lépp dara manqué mais moom xol ba neexul moom dundul parce que xel ma toogul parce que li mu jàpp na ko moom ba tax mu am lu mu yëg ne dana wote ëtt du xiduna ngir kat mën ci am ay jangat mais ñun suñu jangat bi ñu ci am rek moom ni wax sa juus rek lañuy wax fi rek ni bëpp immigré bo xamé ni dañuy dugg ci néegu sey wala ngay tabax kër bo momal sa bopp wala ngay ubbi sa bopp entreprise aduna aduna aussi même amna ay exceptionnel kenn bañu ko ndax buñ tuddee junni yu baax am na ñaar yu am na buñ tuddee buñ buñ tuddee junni yu bon am na ñaar yu baax kon bu ñëpp ñu jubati déedéet du immigré yëpp ñoo takk ay jigéen ñu jubati déedéet du immigré ñoo jox seen alal ay diw ñu lekk déedéet mais tamit du immigré yi tamit ñoom ñoom ñoo euh, euh, dugg ci ay projet seeni xarit wala seeni mbokk yàq ko déedéet loo gis rek am na exceptionnel waaye li ma ci bëgg wax yàgg naa ko di wax ne réew mi tey boo wër ci monde bi moo xam ci prison yi la moo xam fépp fu doomu aadama bi xeexee ak ak yellee xam la ko ëpp ci réclamation mooy couple yi damaa bëgg tas ak daf may takk ak dañu am problème ak dañuy nangam ak moo ëpp ci tribunal yi te daa waroon loolu lu dul ne koy dugal ci néegu sëy dañu caaw dañu ci dugal mu doon loo xam ne kenn du ci dugal doomu aadama nit ki mooy toog ba yëg lii daal yëg naa ko ci kii laa ko yëgee mu jël propre responsable dem moo dugg ca bu ëllëgee lu mu ci gubbe rek gàkko kon loolu moo nekk man sama point de vue bi ma ci yàgg joxe mais nag lii nag day waar mooy ba léegi waxambaane mu ngi sëy xale bu góor bi xale bu jigéen bi maa ngi defal lépp mais nee na ma sequ maak moom dara parce que sama xel dalatul ci moom mu ma la waxee dëgg dafa mel dal dama koo ci souf ta sa ko ku faseegul to kon gis nga ni ki mu ngi am ay metti ci bir néegu sëyam ba nekk nek bitim réew te nee na diw ma ne ko naa mu ni ma ginnaaw bu nekk samay wéy ñu wax ne ginnaaw ma nga am sik sakat ci mom est ce que duma ko jël yobbu ko bitim rew nee ma suma koy bëgg bitim rew damay gën blessé damay gën a ndax ko xamni ci rew mi rek wóoruma ko kon su ma koy bitim réew rek may gën a toroxal mu doon ka bo xamni nak actuellement mu ngi euh, mu ngi dox mu nek en activité euh, parce que amagul chute mais li ñu jot xam actuellement nii Covid mu ngi dem mais ci phase bi lay demee mais nag tax ñu tiré tey ay leçon yu bari moy da fay dal ay doom adam yu bari yo xamé ni dañu nek bitim rew di nek di liggéey di gor gorlu mais nekku nekkuñu ta leer ko tek lu ëpp ci ñoom mu ngi fi ci réew mi fi la leen ko tegee ci biir réew mi mu doon xibaar euh, euh, euh, boo xam ni dañ ne woon rek danañ ko junj indi ko bu ko defee ñi nga xam ni xëy na loolaa nga doon lëb seen xel ci ay ngoro yu ñuy dugg ak ay mbir ñu mën a fàggandiku mën a bàyyindi ko xel ne sëy dafa doon lu doy waar ndax sëy moo ëmb lislaam sëy moo ëmb adama sëy moo ëmb li nga xamee ni moom mooy indi gu doomu adama kon fondement bi nga xam ne mooy fonda yaduna boo koy def war ngaa jël sa propre responsabilité ndax mooy buntu aduna kon buntu bi dafa am solo nit ci prudent lool ci lépp lu ci def mu doon xibaar boo xam ne yaakaar ne am na solo ci bile réew ak ñi nga xam ne ñooy immigré yëpp ni ma ko yàgg waxee rek képp koo xam ne ñoo soxla mën nañu woo suñu numéro direct muy 33 929 45 42 ndax du yàgg lool xëy na suñu waxukaay yi dana am gàllankoor looloo tax ñu leen ko xibaar pour ngeen bàyyi ci xel baax a baax. mais aussi tamit bu ñu fàtte mu ko abonné ci chaîne bi dana ci am solo lool ci yéen ndax mooy tax ngeen am bépp information boo xamee ni eh, dina leen mën a jëriñ bu baax a baax jërë ngeen jëf.